Ah, jërë ngeen jëf yéen ñu ñuy bàyyi xel ak di top suñu ay vidéo ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar fépp fu waay mën a nekk di ñu bàyyi xel ñu ngi lay jaajëfal bu baax di ziar comme niñ koy defee saa su ne kilifa diine di sàq su ñoom ñaan waaye tamit di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bàyyi leen fi ba ci kanam kanam ndax ñoom seen nekk fii ci àdduna moom mooy suñu njariñ heure bu ñu réeree rek ñoom ñuy daal di tegaat ci yoon waaye di nuyu bu baax kilifa diine yi ñaanal ñi nga xamante ne rek dañoo nekk seen kër te tawat yàlla suñu borom fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw suñu borom génnee leen fa te ñu bañ a defaat lo xamante ne dañ leen fay delloo waaye tamit képp koo xamante ne rek da nga dëddu àdduna yàlla yërëm la jégal la taxaare leen àjjana ñu leen di ñaanal bu baax suuf woyof ci seen kaw waaye tamit ñun ñi nga xamante ne ñun la fi yàlla suñu borom bàyyi ñu gën a góorgóorlu te xam ne ñi dem du seen ñàkk fayda moo tax ñu dem waaye ñu nit fii toog fii du am fulla moo tax ñu toog dadi kay àdduna natt la képp bu ñu la tëree képp ku turam génn rek day daal dem wuy suñu borom gudd fan te bu ñuy jël mu daal dañuy fekk ci loo xamante ne ci lu baax la ci lu neex yàlla la di leen ziyaaraat bu baax a baax a baax tey nag ñu ngi nii toog seet si ki nga xamante ni rek moom mooy a ah, baara Bara Fall borom cabinet médical univers bio bi nga xamante ni moo nekk foofu ci géejawaay arrêt doubalees moom nag kenn dootu ko présenté ci yaakaar naa ne télévision boo dem fu nekk yaa ngi fay gis ay vidéom internet bi foo nekk fu ne yaa ngi fay gis ay ah, vidéom waaye nag képp koo xamante ni rek danga ko soxla si numéro personnel am da ngay def 77 169 45 45 foofu nag yaakaar naa ne boo bëggee jokkoo bi gën a gaaw gën a neex danga koy bàyyil audio rek ndax boo ko bàyyilee audio euh, dina la tontu bu fekkee nag da nga bëgg a woote téléphone wax ak ñi nga xam te ne ñoom ñooy ay secrétaire am da ngay def 77 646 41 21 wala nga def 77 160 93 93 kooku mooy euh, Serigne Lamine Bara Fall numéro bi incha allah dina affiché ci bas écran bi pour yéen ñi nga xamante soxla ngeen ko bëgg ngeen a jokkoo ak moom am ngeen lu ngeen ko bëgg a laaj waaye am nga loo xamante ni bëgg ngeen koo xam ci moom yaakaar naa ne bu ngeen jokkowee ak moom rek dina leer incha allahu rabbi ba tax na dañu koy dalal di ko bàyyi mu nu nuyoog ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan sëriñ Lamine ñu ngi lay nuyu bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu bu baax soxna maam ñu ngi lay siyaare bu baax di la ñaanal yàlla defal la jàmm ak xéwal ak tawféex di la ñaanal yàlla sàmm la musal la muccal la noonu ñu la koy ñaanalee noonu lañ koy ñaanalee sénégalais yëpp di ci jiital xalif général des mourides muy Serigne taxa Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér ba mu àggale naalam ni mu ko bëggee bu ko defee ñu ñaanal itam suñu buntu muy sëriñ Cheikh Bintu Fall bu sëriñ Modou Abdoulahi Fall Ndar di ko ñaanal itam njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ndax buñ ko ñaanalee sëriñ Cheikh Bintu mel na ni ñaanal na ko sëñ Amdi Modou Mbende Fall nekk fële ci jannatu yàlla toogaayam yàgg ci jataayu maam Cheikh Ibrahima Fall. di ko ñaanal rakkam yëpp yi mu bokkal maam Cheikh Ibra kenn képp ku sant Fall rek. wala kuy seexu maam Cheikh Ibrahima a rek yaakaar Cheikh Ibrahima Fall rek di taalibeem ak foo mën a ne ci àddina rek ñoo ngi lay jox sa cër di la jox sa wàccuwaay di sàkku nga ñaanal leen baax sunu maam ju baax ji di am Amdi Modou Mbende faal yàlla na fi yàgg te wér ba mu yeggale liggéeyu maam Cheikh Ibrahima ni mu ko bëggee jërëjëf soxna maam xam naa ginnaaw ba ñu nuyoo ñoo ngi lay déglu ci ñëw bi ngeen fi ñëw fii ci Guédiawaye arrêt Doubalès ba lépp lu nga xamante ni moom ngeen rek incha allahu rabbi daañ leen ci indil ay leeral indil leen ci ay tegtal suñu kéemtalaay kattan kon ñoo ngi leen di deglu ci seen programme loole ñu laaj ñu indi ci xam-xam yàlla na ci yàlla def wér ak wérle def ci dégg ak topp ak njariñ yàlla nañ ko suñu borom boole defal barki borom Tuubaa jërëjëf Serigne Lamine waaye nag euh, question bi ñuy njëkkee daanaka sax euh, mën naa ne bokkul woon euh, ci programme bi mais dafa am koo xamante ne dafa sàkku woon ma laajal ko sëñ bi lan moo waral mënuñu ko jot ci appel lan moo waral mu ni moom ci WhatsApp rek lay liggéey ndax nee na parfois day am ñoo xamante ne ni ñoom it amuñu WhatsApp mais dañuy bëgg a dégganteeg sëñ bi day xaw a difficile ñu bëggoon a xam lan moo waral WhatsApp rek ngay liggéey. jërëjëf soxna maam xam nga soxna si lépp loo gis rek ci àddina méthode dafa am importance. képp kuy liggéey da war a am méthode boo war a liggéey méthode dafa am solo principe dafa am solo organisation dafa am solo liggéey boo war a gis dañ ko war a organiser il faut ñu organiser suñuy liggéey ndax ku xam sëñ Bara Fall xam ne à tout moment mi ngi liggéey ak média mi ngi liggéey ak mi ngi wéet mi ngi jaamu yàlla mi ngi werd mi ngi defar ay garab ndax mbooloo mooy ñëw ci ñun chaque jour dafa am mbooloo buy ñëw ci ñun ñu leen di recevoir te ñooñu dañu leen di déglu seen ay soxla dafa bari te wuute ñii dañoo feebar ñii seen jàngaleen leen yitteel ñii seen sëye leen yitteel ñoom ñëpp boo xëyee nga déglu leen itam da leen war a defaral ay garab ndax ñoomi résultat lañ leen demandé munoo di nekk def consultation ku la woo téléphone nga wuyu ko munoo di nekk di defar itam ay garab di wér di jaamu yàlla ku la woo itam nga wuyu ko moo tax je préfère may bëgg nit ñi di ma bàyyil message vocal WhatsApp ma déglu leen calmement ma déglu leen correctement après bu ko defee kenn ku ci nekk indi la tontu ndax nit ñi dañoo bari te bari ay soxla kenn ku ci nekk sa soxla te dañ may bëgg di dégg wala ñu bëgg ma jot moo tax may demande rek lu may ñaan la ci njekk képp ku ko mën rek nga soxla ma bàyyil ma vocal WhatsApp dinaa la déglu tontu la correctement loolu rek moo waral loolu. waaw pour bu ko defee kenn ku ci nekk ma mën ko jox a axam ak yelleefam dans la mesure di possible loolu rek la ci jàmm jërëjëf yaakaar naa ni question boobu nag leer na ñu daal di jéem a góorgóorlu rek ci li nga xamante ni moom mooy WhatsApp bi yaakaar naa ni kër goo dem bu dul benn di ñaar ba ñett am na ñoo xamante ne am nañu WhatsApp bu nekkee da nga tawar soxla sëñ bi boo nee a ah, sama doom aal ma sa téléphone wala nga la aj abu sa raq wala sa yaay wala sa papa koo ab rek dina la mën a aal nga mën a waxtaan ak sëñ bi ci WhatsApp ndax bari na ñoo xamante ni dañuy woote te bu ñu wootee ligne bi day saturer ñëpp lu ñu mën dugg yaakaar naa ne bu dee audio mo gëna yomb mo gëna neex ndax ku nekk sa audio dina dugg bu soobee suñu borom té señ bi dina ko tontu laaj bi ñi daldi di demande nak moy fièvre bo xamanteni sonal na mag ñi suñu maam yónni ñu mu nekk lo xamanteni tawat bu len sonal la tawat bo xamanteni fat na len danaka mag bo gis rek lolu lay jambat, légui ñëpp a koy jambat mu nekk fièvre tank yu metti ndig bu ruux yaram bu metti suñu maam yi suñu papa yi suñu yaay ñëpp di ko di ko di ko jambat jàmbat bëggoon a xam feebar boobu lan moo koy waaw jërëjëf euh, soxna maam macha allah comme ni nga ko laajee am na solo ndax ku wax mag rek wax wax wax wax wax wéradi mag ñi dañu bëri wéradi te seen feebaru wéradi li ci ëpp mooy ay douleur douleur yi nag mooy ay douleur musculaire ak ay douleur articulaire douleur musculaire ak articulaire nag niñ ko mën a jàngatee ci wolof mooy mettitu yax ak mettitu yaram mettitu yaram yooyu nag mooy muscle yi ñooy metti mag ñi seen muscle yi ñooy metti muscle yi mooy metti muscle nag boo ko déggee mooy yaram bi yaram bi ndax neexuloo wax ci wolof wolof dañu am ay warma maanaam daal feebar yooyu moom la ñuy wax ñi nga xamee ñoom ni koy xamee bu ñu demee hôpital li ñu leen di wax mooy dañoo am arthrose ci meer yi ñi ci gën a bari paa yi ñi ci gën a bari dañu am problème mu neer neer nag day daal paa day dal meer day dal góor day dal jigéen muy neer sciatique muy rhumatisme muy artrose am na ci nga xamante ni nag seen feebar gën na yaatu mooy ñi nga xamante ne dañu am problème mu hernie discale lombaire maanaam ñi nga xamante ne dañu am problème mu lombalgique problème lombalgique nag mooy moom it dana daal góor daal jigéen daal mag daal ndaw daal xale mais comme ni la paa yeeg mère yi gën a yónni ñoom li ci ëpp nag moom nerf sciatique moo leen di gën a sonal. nerf sciatique nag feebar la bi nga xam ne ci bopp lay commencé bopp buy metti la lay njëkk jox jox la loos buy metti jox la ndigg buy metti ak mbagg buy metti ak wet yi metti wet yi. côté boobu lay gën a jàpp ma répété bopp buy metti jàpp loos buy metti mbagg buy metti ak wet yi te dafay dox ba ci ndiggu ginnaaw gi jàpp nii hanche bi muy benn xottu taat bi na ngeen ma baal ci kàddu gi tax lañuy jàngale hanche bi lay jàpp ak genou bi jàpp suufu tànk yi day tànk jër loolu mooy nerf sciatique loolu mooy feebaru nerf sciatique buñ ci jógee am na ñoo xam te ne dañu am problème mu rhumatisme rhumatisme moom it contraire bi la ci suuf lay commencé suuf tànk bi day tàng jàpp genou bi jàpp hanche boobaa itim loolu moom dañuy wax rhumatisme dina dem nag ba ci ndigli loolu mooy rhumatisme bi nga xamante ni itam dafa am problème mu hernie discale lombaire boobu bu ñëwee ba ci ndigli fi ma taxawoon léegi foofu la problème boobu di commencé muy problème mu hernie discale lombaire loolu ci ndigli lay nekk ndigli ci colonne vertébrale bi dafa am ay disques yi ci nekk ak ay yax yu dugalante léegi nag bu yax yooyu dérégler wala mu daw wala mu puus wala mu tëj ci benn neer boobaa la ñuy wax problème mu hernie discale lombaire muy problème mu lombalgique dafa am benn sidit exemple bu nekk ci colonne vertébrale bi moom la ñuy wax moelle épinière moelle épinière boobu nag bu fekkee dafa am benn yax bu déplacé quelques millimètres tëj ci benn neer boobaa la wax problème mu hernie discale lombaire muy problème mu lombalgique loolu nag en général sunu mag ñi nga xam ne dañ daan faral di diis ñoñu feebar bobu daf leen di dal bo tamé daan yëkëtu lu 10 wala nga def sport de combat wala nga def bëri wala nga daan def yeen liggéey yi dafa bëri wala activité yu metti trop même jigen bi xam dafa tamoon daan foot foot bu metti ba dem ba nek mak en général lool da koy dal képp ku daan nek sa ndaw rek di def di def yenn liggéey physique yu metti en général daf lay dal parce que lu 10 sa yoo ko yëkkatee jàppal ni amna sa benn sirit wala benn yax bi nga da te déplacer wu di dem té bu éggé ba ci benn sirit mëna ko tecc surtout ci moelle épinière bi boobaa nag la wax problème mu hernie discale lombaire muy problème lombargique loolu bu demee bu yàggee dafay dem ba daaj intervention chirurgicale mais ñun mën nañ ko faj sans intervention chirurgicale muy lépp léew dégg li may yi may wax fii rek même bu fekkee dama utiliser des termes scientifiques nga xam te ni peut-être ki jàngul wala ki xam te ni xamul faj dëgg du ko xam mais am na mën nañ ci for ay baat jàppal lu mu ci mënti doon dañ koy faj fii. mais problème mu lombalgique boobu muy problème mu hernie discale lombaire dañ koy faj ba mu wér fii ci cabinet Guédiawaye Aridou Balès Kër Serigne Bara. am na nag bi nga xamante ni jotuma ci ñëw muy problème mu arthrose. Mm. arthrose nag moom laa majorité ci ñi muy dal mooy sunu maire yi bépp jigéen bi nga xamante ne des nga ba egg quarante ans quarante cinq ans rek da ngay faral di am arthrose arthrose nag mooy yax yi nga xamante ni yax yi buñ ko doon def rajo ku am artrose bi nga defalee rajo defal la IRM dañuy gis ni yax bi dafa am ay bën-bën dafay mel na dafa lekku loolu sax dinaa ci gën a ñëw ci beneen feebar bi nga xamante ni mooy wàllu ndoxum siti maanaam yax bi nga xamante ni yax bi yax bi waxu man yi bi ci boppam day mel ne lu am ay bën-bën loolu ndoxum siti moo koy waral kon artrose jigéen ñëpp lay daal képp ko ci xasa am quarante ans seetlu bu baax bépp jigéen bu am 40 ans da ngay am problème mu genou am problème mu yàq loolu jigéen ñi la ëpp ñu daal dana daal góor nag mais ci jigéen ñi la ëppee à partir de 40 ans lii daal mooy euh, sa maam yooyu ak sunu wëyjur yooyu sunu kilifa yu baax yi nekk ci sunu Sénégal gii bokk ak yow bokk ak man yónni biñ la yónni ci man di la laaj seeni feebar la majorité ci ñoom feebar bi yii ma tënk nii mooy li leen di faral di dal muy problème mu nerf muy problème mu arthrose muy problème mu rhumatisme. ak surtout problème mu hernie discale lombaire loolu mooy li nga xamante ni daal moo waral seen métit yi nga xamante ni mooy commencé ci seen bopp jàpp seeni i loos ñëw ci ndigg li ñëw ci tànk yi ñëw ci hanche yi ñëw ci suufu tànk yi. wala guddi gi bu ñu nelaw bu ñu tëddee guddi du ñu mën nelaw ndax ay métit te dañuy sonn ay jàmbaar lañu seen tànk yi day foq rek di métti day métti guddi gi bu ñu tëddee ba relaxé na day métti waaw loolu yëpp am na ay traitement yi ñu leen mën a jox yi nga xamante ni da koy faj ci biir ak lu koy faj ci biti ak ay pommades yu mu àndal ak ay massage yu mu àndal ak ay garab yi nga xamante ne yëpp rek moom lañ leen di jox toppatoo leen ndànk ci njekk ci teranga ci sutura faj leen ko ndànk-ndànk ba mu nekk li nga xamante ne luy dem luy dañ la ci kàttanu yàlla macha allah. incha allah mais am na lu ma bëggoon a laajte mooy euh, maanaam feebar yi nga xamante ne moom nga lim nii yëpp ban feebar moo ci gën di dal suñu waajuru góor yi. waaw lii gën a dal góor ñi comme ni ma ko expliqué léegi rek mooy góor ñi nga xamante ni dañuy yëkkataan faral di yëkkati lu diis mooy ñi nga xamante ni dañuy yëkkati lu diis ñi nga ni dañ daan nekkoon ay ouvrier xam nga ouvrier ku ko xam rek wax dëgg yàlla ndax ay maam lañ waaw ay maam lañ tey mais démb dooñu woon ay maam ay waxambaane lañ woon ndax dinaa mel noonu yow mi tey ëllëg di nga dem ba nekk mag nekk maire yàlla na ko yàlla defal ba nga am quatre-vingt-dix ans wala téeméeri at yu teg juróom fukk yàlla mën na ko mais tey jii li nga am ci doole di ko mën di yëkkati fii la quelques années doo ko mën ndax sa at day dem léegi ñoom li leen di gën a sonal muy problème mu hernie discale lombaire muy problème mu lombalgique loolu muy li leen di gën a sonal ci góor ñi moo ci ëpp muy ak itim nerf sciatique waaw am na ñi xam te nag daañu am euh, rhumatisme te rhumatisme bu yàggee bu demee ak feebar yi may wax nii yëpp may expliquer bu yàggee bu demee mën na dem sax ba boo ko fajut wala si c'est maltraité mën na la juróol sax lu ñu naan paralysé ndax paralysé yi nga gis fii yëpp. loolu du koy indi même feebar bi ñu naan AVC ci paa yeeg mère li ci gën a bari looloo koy indi parce que ñi am ñi ci ëpp ci ñoom boo ko seetloo dañ daan am problème mu nerf problème rhumatisme problème mu hernie discale wala tension hypertension artérielle genre feebar yu mel noonu. si c'est maltraité rek wala diabète bu ci làqatu yooyu bu dafa dañu nekk ay feebar yoo xam te ne dañuy dem ensemble bu fekkee si c'est maltraité rek fajoo ko faj bu ci war wala faj bu ci baax rek mën na la indil paralysé paralysé nag comme ni ngay dégg AVC ni day jékki-jékki rek. Mm-hmm. cëram yëpp bañ cër yi bañ parce que sidit ak yax yi la bu bañee mooy gémmiñ gi dawee benn côté sa tension daw wala suukar sonal la wala diabète sonal la wala nga am coma diabétique nga tëdd benn côté daanu léegi après côté boobu day paralysé loxo boobu day bañ tànk bi day bañ sidit yi day bañ te faj boobu day dem ba indi ay rééducation te bëri na ay ñu mu daaneel ci àddina AVC boobu ñu su sonal la te bëri na daaneel macha allah waaw ñu ngi rek fi nga xamante ne rek moom mooy euh, cabinet médical Univerbio bu euh, a arrêt Doubales euh, kër Serigne Lamine Bara Fall numéro personnel ba tey nee naa leen 77 169 45 45 da nga koy bàyyil audio bu soobee suñu na la tontu bu fekkee bëgg nga jokkoo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoom ay secrétaire am nga woote ci 77 646 41 160 93 93 ba tey seeñ bi li ma doon laajaate moom mooy feebar yëpp nga fi lim eh, gis nañ ñoom ñëpp ñoo bokk nu ñu manifesté woo te benn bokk ci ak sa morom tur. waaw euh, xam nga nit nit dafa am nu ko yàlla bindee ndax nit ñi tolloowuñu ay physionomie nit ñi itam tolloowuñu ay anatomie maanaam nit ñi tolloowuñu ay dëgër laay yaram waaw moo tax feebar yi bu ci nekk ay turam la nerf sciatique turam la fe feebar la rhumatisme turu feebar la hernie discale tur feebar la AVC tur feebar la hémorroïde tur feebar la te ñoom ñëpp dañuy demandoo ensemble ndoxum siti day demandoo ensemble te yooyu yëpp am na lu koy waral moo tax très souvent damay bëgg rek soxna maam malade yi ñuy def consultation ndax bu ñu ñëwee def consultation ñu mën a xam seen historique xam seen feebar fan la jóge fan la toll tey ak fan la leen mën a indi ak fan la leen mën a jëmee ndax ñu bu ñu la defalee consultation bu ñu xamee ni sa feebar bii tey mën na la jural dans quelques années ñu ko mën a dogale du dëkk te paralysé li ko paralysé mooy ku dem ba mënatul boppam dara dootoo mën a sang sa bopp café sax dootoo ko mën defal sa bopp waxuma laa togg waxuma laa liggéey kon loolu yëpp ñun dañ koy xam bu ñu la defalee consultation dañuy xam sa feebar bi d'ici anne années di si quelques mois fan la la mën a yóbbu ndax sax mënu rey te boobaa ñun bu fekkee ñun gis nañu ni feebar bi mën na la lor wala mën na la gàllankoor ñun mën nañ ko dogale loolu la consultation di jëriñ ñu xool yan garab yu baax ñu mën na ko toppatool suivre la toppatool defal la des bons traitements donte nag feebar yi mën na daje ci nit comme nit ki mën na ci am ñaar comme nit ki mën na ci am ñett ñu mën a xool yan composition garab lañ lay mën defal ba loolu yàlla dimbali la ci macha allah. waaw macha allah. Ah, jërëjëf kon bu ko defee dafa souligné lu xamante ne dafa am solo loolu muy yéen ñi nga xamante ne da ngeen di ñëw di xool ci seen wér-gu-yaram ngeen def consultation ñu insister ci consultation boobu parce que tey boo jugee sa kër dem hôpital boo demee dañ naan la defal consultation. boo defee consultation si lañ mën a xam lan ak lan moo la jàpp dinañ jël sa tension dinañ jël sa sucre kon boo ñëwee fi nga xamante ne rek moom mooy ci cabine bi tamit war nga mën a def consultation ñu pour feebaru bopp buy métti rek alors que ni am na beneen feebar bu la dalaat ci biir kon bu fekkee defoon nga consultation day tax euh, liggéey bi dina gën a yomb te dina la arranger bu baax a baax ba tey ñu des ak yow euh, Serigne Lamine ci euh, beneen feebar. feebar bi ñu nekk sax la mais mu nekk feebar bu sonal xale yi moom it ndax bu njëkk dañ daan gis ni pratiquement tànk yuy metti ay ndigg ak yooyu daawul dal xale. man nak bañ na wax naan xalé du febar du sonu mais jamono ji ñu tollu xalé yi sax ñu gëna febar mag ñi ah, xam naa sax du ñak ni yow li nga ci xam lu leer ndax peut-être fi nga nekk di liggéey souvent di nga gis ni xalé yi ñom ñoy ëpp lu ñuy ñëw lan mo waral lool waaw exactement soxna ci mam lu lu deggu nga wax lu am nga wax lu leer nga wax ndax febar yoy bu jëk dañ daan gis ni mag lay dal comme ni ñu né arthrose bép jigen bu am 40 ans en général febar arthrose daf lay xaw jege mais légui dañuy gis ni légui xale bu góor bu am vingt ans rek da nga gis arthrose da koy dal wala xale bu góor bu am vingt ans muy góor jigéen da nga gis mu am problème mu neer wala da gis xale bu ndaw am problème lombalgique wala problème mu hernie discale lombaire wala xale bu ndaw am problème mu AVC loolu yëpp gis nañ ko fi parce que soxna maam bu ñu xoolee bu baax jamono ji li ñu gis mooy ni ñuy lekkee jamono ji moo baaxatul suñuy alimentation suñuy régime alimentaire il faut ñu koy seetaat ndax li ñu utiliser ci bouillon dafa bari li ñu utiliser ci sucre dafa bari li ñuy utiliser ci xorom dafa bari ni ñuy lekkee léegi baaxul li ñuy lekk ci pat dafa bari maanaam lekkatuñu vraiment bio te lekkatuñu naturellement lekkatuñu itam li ñu fi sunu maam bàyyi lu mel ne que dugub lu mel ne que mboq lu mel ne que ay vitamine yaay dégg lu mel ne que ay légumes yi nga xamante ne itam bio wala ay fruits yu mel ne bio léegi xale yi dañoo fënax xasuma leen nag mais xale yi léegi yax yi ñu am feebar bu ndaw bu nekk rek dafay leen di gaaw a dugg du nek def na di gaaw dugg da nga ci gis nak yeen say ben ouvrier bi xamanteni day fay dafay faral di ñew fi nga laj lu la dal mun la dama doon faral di yëkëti lu diis ci maçon wala dara faf sama ndig bu bloqué wala sama ndig coincé wala nga gis xalé bi xamanteni day am problème mu yàq wala nga ko am problème mu neer wala yu demee noonu day am mais nak ay kala yi xamanteni xamante bari wul torop par rapport ak mag ñi mag ñi ñoo ëpp fièvre yoy mais nak mën nañu wax ni danañ ko am 10 ci sunuy malade par rapport ak mag ñi manam mag ñey gëna bari manam so fajee juróom-ñaari mag ci feebar yoy di nga ci am ñaar ba ñett ba ñeenti nit yi nga xamanteni ni xalé lañ may def leen di dal manam fukki nit yo jël ci ñu am feebar ñooñu juróom-ñaar ñi mom c'est sûr ay mag la ñuy doon ñett ñett ñeent ñi lay nekk ay xale macha allah mais nak kala euh, yi xamanteni wax deug yalla dañ ko fi fajj normal dañ ko fi fajj normal wa surtout ñi def sport de combat ak ñi yëkëti lu diis ak ñi xamanteni tim nak dañu deug liggéey ndax amna liggéey yi nga xamanteni ci côté mystique bu fekkee da nga dëgg liggéey mën na la def tànk yu metti wala tànk bu neewi wala mu def la mettitu yax wala mu def la mettitu sidit wala genre yu demee noonu. am ñoo xam te ni ci sport la leen di dal ci nawetaan yi. yaa ngi dégg am ni ci làmb ji am ñoo xam te ni dañ doon liggéey fañ doon liggéey ñu suula leen fa liggéey ñu dëgg ko bañ ko dëggee seen tànk bi day neewi wala seen tànk yi di metti ba ñu mel ne lu paralysé dootuñu mën a dem man gis naa ci benn sportif bu mag bi xamante ne takk na fii sax ci senegal gini ni ñi wax médaille d'or jëlé na ko ba bitim réew indi ko mais dañ ko liggéey ba ndiggam tànkam yaxam yépp ay metti amul fu wut amul fu dul neewi ci yaramam té lolu liggéey la mu ñëw fi di jël ay traitement di faju te xam nga ni kon lolu doyna war fu mu dem ci hôpital yi ñu défal ko ñu défal ko ay bilan IRM défal ko radio défal ko analyse défal ko ay écho adina këyit la yor fièvre yi may wax yépp amna ko ci di tuba bi di gis te mënuñu ko faj ba mu wër fu mu dem ñu ne ko liru faju tuba faju wolof la parce que lii yëpp mënul daje ci mm-hmm. ku am neer am rhumatisme am arthrose am hernie discale ah am AVC am lépp lépp luy feebar yu xeetu yàq ak si nit moom lañ ko def te loolu xam nañu naka la korte la liggéey la korte la am ñoom dañ leen korte sànni leen liggéey sànni leen korte njibar leen ba seen lépp ay metti seen fépp ay neew yi mënuñoo dox ñaari mètre daano daanawuñ moo loolu doy na waat ki xam te ne sportif nga woon athlète de haut niveau laa de international fu nekk représenté na fa Sénégal ba jël fa ay médaille d'or te fii may waxee yow nii yàlla xam na ni samay traitement lay jël. kon loolu doy na waar Mamati lu doy waar te xale amul 30 ans amul 30 ans yàlla yàlla doolu sutura. téléphone damay leen daan di fàttaliwaat ba tey rek Serigne Lamine Bara Fall di ko liggéey fa ngay doon famille médicale univers bio Guédiawaye arrêt bu Boles foofu la nekk Guédiawaye arrêt bu Boles boo ñëwee rek foo laaj Serigne Bara dinañ la ko daal di wan personnel bi 77. 169 45 45 77 169 45 45 moom nag boo bëggee jokkoo bu gën a gaaw gën a neex da nga koy bàyyi guddi bu soobee yàlla dina ko tontu wala bu fekkee da nga bëgg a jokkoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy secrétaire am nga def 77 646 41 21 77 646 41 21. wala 77 160 93 93 77 160 93 93 ba tey sëñ bi rek dañu daal des ak rek moom mooy porte ba xam yow am na ci ay saafara ndax nekk na tamit ñoo xamante ni lu sonal askan bi la ñëpp e lañu koy def mu nekk tamit feebar bu métti boo xamante ni bu la dalee souvent bala ngaa xam lu mu doon rek day importance nga wax nag wax dëgg ndax ku xam porte tur bi dafa diis. Mm-hmm. nit nga dem fenn ñu seetaan la xoolal la wala say mbokk sax bu ñu amul xam-xam xool ni yow mi dañ la kott dafa nekk nga xamante ne lu métti lu métti lu métti ku mu dalul rek gis nga ku mu musa dal yàlla yàlla yàlla ci yàlla musal mboolem jullit ba képp ko amati xam-xamu kott di ko sànni ci bon ak sa bakkan rek tax yàlla bu mu jàpp ñun dañ koy dindi ñu la kott ndax kott dafa bari am ñoom tamit dañ lay kott comme ni ma wax sànq paralysé la sa lépp bët am ñoom tamit day kortu ndax kortu mooy sànni nit ki doomu jàngoro wala téye nit ki takk ko paralysé ko takk ko ci lépp dara daraam dootul dox daraam dootul fonctionné loolu mooy kortu léegi ñun ci boobaa ñun dañ koy dindi ñun nag ni ñu koy dindee comme que ñun suñu lépp alquran la ndax ñun yàlla moo wax ci alquran maa farat naa fi kitaab min a law anzalnaa haazal qur'aan alaa jabalin laraa'aytahu mu'aashi'an mutasabbihan mutahashiban maanaam lépp ni ngi ci biir alxuraan alxuraan mën na lépp na lépp am ñoom te leen kott ñu am xetu gémmiñ am mm. dañ leen kott seen gémmiñ day génne xet bu bon day mel na foos mm. am ñoom dañ leen kott seen gémmiñ bi day génne ay gunóor am ñoom dañ leen kott seen yi dañuy génne ay taab fu ne fu ne la ñuy génne taab boo bës ay gun ay sax yu ñuy kukku mooy génn mm. xam nga kon loolu day na waar am ñoom dañ leen kott seen yaram di génne xet seen yaram mooy génne xet bu xasaw am ñoom dañ leen kott toilette dootuñu ci mën dem am ñoom dañ leen kott ñu mën a saw am ñoom dañ leen korte ci seen awra seen awra dañ leen korte ba ci seen awra dootul jigéen dootul mën sëy wala jigéen bi kanamam mooy am xet xet gu bon a bon a bon a bon am na jigéen ñoo xam dañ leen sànni korte seen kanamu sëykaay dafa am xet comme butitu jën mooy xëy góor gu ñu jege rek xet xet butit mooy xëy xet gu bon a bon a am ñoom te ni góor ñi xam dañ leen korte seen awra awra góor bi day ngande te loolu yëpp ñu duñ koy gis am ñoo xam te ne dañuy dem awra awra boobu dañ leen di kortu ba seen awra day tëng ñii day jàdd gauche mu jàdd droite wala mu sëgg dootul mën a dafay mel lu damm te xam awra sirit moo fa nekk mais yax amu fa day mel na awra bu jàdd sëgg lool mel na banaana bu nungu yëpp dafa nekk yoo xam te ne doy na waar am ñoo xam te ni seen toogukaay fa ñu war a toogee lañ leen kortu fa ñu war a liggéeyee bu ñu waree xëy huit heures balay midi seen liggéeykaay dañuy mën a kumuk dem seen taat yi fa ñuy toog day fees dell ak ay picc dell dell ñu mën a toog mënuñu toog ñu taxaw mënuñu tëdd kon soxna si corte yu bëri na ci mhm. ndax lan soxor iñaan jaloux rivalité wujje yéene nit ñi lu bon xeexante defante lu bon mbiru àddina ak xëccoo mhm. a xëccoo ak yàqal nit corte yi dafa bare ba ci sport bi dafa bare ba ci politique bi corte bi ba ci biir politique bi dañuy kortante ba ci biir sport bi dañuy bi muy ci football muy ci làmb muy ci bëri muy ci sport de combat yi muy ci sport naturel yi quartantaine fii ci Sénégal daf fi bari mhm. nit ki dafa naan la doo dem mais du ma dem da yàq yàqal wala sa ñu xool la nga toog sa place ñu la jógal pour ñu toog sa place sànni la feebar bi nga xamante ni yow dootoo ko tal wala dootoo ko fekkee mhm. kon façon corps yu bari na façon corps yu bari na jërëjëf sëñ bi leeral na ko bu baax a baax ñun ñi nga xamante ni mooy wàllum topp nekk nag loo xam ne lu metti la bu la daal di dalee maanaam nañu buñ tuub sax ci kàddu bi waaye dee sax nga lay daal di gën a dimbu kon nag képp ku mu dal rek yaakaar naa ne bu ñëwee fii dinañ ci am ay saafara waaye tamit li nga xamante ni ñun suñu maam ñu yóbbante ñu ci wàllum tànk yu metti ndig metti yaram bu loolu yëpp tamit ngeen fi ñëwee a jokkoo ak sëñ ngeen woote rek wala ngeen vocal ci 169 45 45 wala it ngeen woo secrétaire bi 77 646 41 21 77 160 ko defee nag ñu ngi wàcc beneen feebar boo xamante ne mën naa ni feebar feebar yi dañuy bëri bëri bëri jamono ji ñu toll moom moo ci gën a sonal nit ñi sonal na góor sonal na jigéen sonal na mag sonal na ndaw yi nag bari loolu loolu tey ñu fas yéene feebar la boo xamante ni. ñii naan nii la lay dalee ñii naan day wàlle ñii dina wér ñii naan kenn lu ko waaye nag dinañ ci am loo xamante dañu leer def muy hémorroïde sëñ bi lan moo waral waaw jërëjëf soxna maam euh, traitement hémorroïde moom am nañ ko fi ndax bala ñuy ñëw ci cause ak conséquence dañuy jëkk wax traitement bi am na. mais euh, xamal ni rek hémorroïde mm-hmm. feebar la bi nga xam ni. moom mën na dal góor dina dal jigéen dina dal mag dina dal ndaw ñëpp lay mën a dal waaye yàlla na ëmb ñëpp waaw yàlla ñëpp am jàmm yàlla ñëpp am wér donte nag mënta nekk mhm. xam nañu yàlla moo bind lépp waaye da ko bindaale ak wéradi xam nañu dañ koy ñaan la ñaanuñu ko kenn te yéenuñu ko kenn waaye bu doon suñu sa ko ñëpp wér mhm. mais feebaru hémorroïde feebar la bi nga xam ni hémorroïde dafa am interne am externe mhm. maanaam hémorroïde bi ci biir ak hémorroïde bi ci biti mooy ki nga xamante ni fi muy demee toilette fi muy demee douche maanaam ci ginnaawam ci anus bi dafa am ay picc wala taab wala am luy jóge ca biir a biir a biir a biir di wàcc ba fu muy demee toilette loolu yëpp hémorroïde externe lañ koy tuddee te day saf day nàcc di metti am na ñoo xamante ni seen bos dana nàcc am na ñoo xamante ni seen bos du nàcc damay bañ wax day nàcc nit ki di seetaan gisul ba sam di nàcc mu ni kon awma hémorroïde déedéet mm-hmm. dafa bari façon ñenn ñi ay picc lay def ñenn ñi ay taab ñenn ñi ay buum mooy génn ñu ci des nag am na luy génn ci boutique ba am na ñoo am na luy génn mel na saan luy génn ci boutique mm-hmm. te daf lay tëj dangay ngay constipé da ngay doo mën dem toilette normale doo mën a dem toilette normale wala booy dem toilette mën nga ko muñ ñetti fan ñeenti fan yi xam te ne da ngay sax ragal a dem booy dem yu mel noonu da koy sentir sa ginnaaw kon lépp lu anormal nit fa ngay demee douche lépp loo fa gis nga xam te ne en général hémorroïde mais loolu yëpp daan ci mën a gën a dugg dans la consultation hémorroïde ex e-, e-, externe moo nekk noonu hémorroïde interne bi nag mooy ki xamante ni biir ci biir bi lay nekk loolu li koy njëkk li muy njëkk def mooy daf lay son ballonnement daf lay def ballonnement de ventre ballonnement de ventre la majorité ci nit muy daal mooy ñi am seen biir bi day ballonné day rëy day def ngelaw loolu mu bëri na jigéen ñi muy daal ballonnement de ventre woo sonal la jigéen ñi xottu biir yi ñuy am yu rëy yooyu li ci ëpp hémorroïde te ko xam jigéen itam ak seen façon lekk ñoom jigéen ñu dañu am ay lekk yu sew yi ñuy faral di lekkal mm-hmm. te lekk yu sew yooyu ñuy faral di lekkal bi ci gën a bëri day jox hémorroïde interne seen ñu am xottu biir da ngay gis xale bu ndaw am xottu biir bi nga xam ne yow da lay jaaxal da nga naan kii sax est-ce que mm-hmm. te fekk ni dara dal mais xottu biir yi ñu am li ci bëri amul interne moo leen di jox ballonnement def leen ngelaw ñi ñi nañ ci gis seen bopp mm-hmm. mooy ñoo te dañu am ballonnement def ngelaw def ay reflux gastrique def ay gaz gaz bi jóge ci biir bi i génn te à tout moment dañuy ngelawal mm-hmm. soo jàppoon diggante timis gee sax sa njàpp day toj en général ngelawal la lay def lu bari te mu yàggee ki mën na dem ba def la ngelaw boobu day jóge ci ci biir bi di génn te loolu itam day jur feebar bu ñuy wax mauvaise haleine danañ ci gën a après mais surtout ñi nga xamante ne dañ am ballonnement de ventre daal la majorité loolu mooy feebar hémorroïde te daf leen di tëj duñu mën a seere dañuy seere dañuy seere à tout moment duñu mën a dem douche normal mën nañu toog ñetti fan ñeenti fan wala une semaine bu nekk benn yoon la ñuy dem toilette te loolu c'est pas normal nit ku nekk war ngay mën dem toilette chaque jour benn yoon saa boo yeewoo wala guddi gu nekk wala ngay tëdd war ngay mën dem toilette normal mm. ndax nit ki da ngay boo xëyee nga ndékki añ reer lekk fruit naan boisson yooyu ataaya nangam nangam loolu yëpp nga jël ko ci journée nga yeewu ba suba te demoo toilette loolu kooku war nga xoolaat sa bopp war nga xoolaat bi li nga consommé ngay ba le lendemain video dara ah loolu loolu loolu kooku ku mu dal ku muy dal war nga faju ci xam ni am na feebar bu nekk si yow wala li ngay consommé une vidéo te nit di vidéo sa yaram du lépp la soxla kon loolu mooy hémorroïde en quelque sorte en grosso modo feebaru hémorroïde feebaru biir la diggante sa mbaq bi ci estomac bi fa la ak fi ngay demee toilette jafe-jafe yooyu fa nekk ci ci ci ci ci ci intestin yi intestin grêle ak gros intestin yi ak anus bi foofu jafe-jafe yooyu bu ci am moom la ñu mën a tuddee wàllu hémorroïde dans la consultation wala ñun suñu traitement buñ lay jox traitement bi général lañ lay jox ndax bu nekkee interne tôt ou tard dana nekk externe bu nekkee externe ça veut dire que feebar bi avancé na ba sore na ci yow ñu jox la traitement bi traitement bu gaaw la un mois lay durer kuñ ko mos a traitement bi cherul dañ ci def xewlu Serigne Touba xewlu Seydina Mouhamad Rasulullah sallallahu la wa sallam kuñ ci jox traitement bi pendant un mois yàlla dimbali na sa émiré bi tàgguñu conséquence bi maanaam waaw conséquence su hémorroïde surtout góor la gën a garaaw ndax nee nañu góor gën a butit la am. Mm-hmm. boo amee hémorroïde li ma wax léegi nii ci biir léegi imaginer nga am hémorroïde mën na la jural tële. Mm-hmm. mooy lu ci gën hémorroïde day jur tële góor bu am hémorroïde pour nga mën a sëy normal day jafe trop day jafe de day jafe trop bu dee jigéen mën na dem ba indi la fibro wala mu indi la ay kyste wala ay myome wala mu indi la itam ëllëg ngay sëy wala nga war a am doom doo mën a am doom ndax feebaru biir la butit bi dafay am infection ndax bu fekkee da nga am hémorroïde interne wala externe sa butit bi sa colon yi day am infection ndax nee naa day def ballonnement de ventre te yooyu day jur ulcère day ulcère ak estomac muy feebaru mbàq yi yooyu yëpp loolu moo koy jur waaw su fekkee da nga am hémorroïde da koy teel a boo ko sentiré teel ci jóg nga faj parce que am na feebar yu bari yu la mën a jural lu bëri bëri mën na koy jur feebar yu bëri ngay gis nit di ko am looloo koy indi su bu dee jigéen itam mën na jur dem ba jural la lu ñu naan colopathie fonctionnelle bu dee góor mën a dem ba jural la problème mu hernie hernie hernie hiatale wala hernie aiguë yooyu yëpp dafa fekk ay feebar yi nga xamante ni dafay lëkkaloo ak hémorroïde waaw surtout nag hernie hernie su góor ñi góor ñi itam hernie def leen yàq wala mën na jur sax prostate day jur ay feebar yu ñuy wax prostate feebar prostatique nga xam ni prostate moom organe la bi nga xamante ne nekk ci naq góor ci naq ba fa lay placé wu yëpp dafay nekk nga xamante ni euh, hémorroïde bokk ci lu koy ku am hémorroïde ci góor ak jigéen jàppal ni feebar yi yëpp mën na ko lu doy waar la nekk lu ndaw feebar la boo xamante ne lu nekk na waaye nag rawatina góor ndax ku nekk xam nañ ne góor benn butit la am jigéen ñaar moo tax bu dee feebar boo xamante ne day daal di jóge ci biir rek day daal di xaw a sonal ku góor gi waaye tamit ba tey am na leneen loo xamante ni bëggoon naa ko laaj ndax dama mës a dégg euh, kenn mënu koo faj benn yoon kenn loo xamante ni traitement lay doon nga di ko toog di ñëw jël ay garab di dem di ñëw ma dégg am ku ko doon wax ndax nee na am na ñoo xamante ni da ngay rek di dama am hémorroïde ñu jël benn garab jox la nga demal bu jeexee waaw soxna maam loolu euh, mun naa nekk mun na nekk nag ndax xam nga docteur ak sëriñ dañuy faj mais yàlla muy wéral li ma la wax sànq nit ñi tolloo ñu ay physionomie tolloo ñu ay anatomie ñii seen feebar day gaaw wér ñii seen feebar itam day yéex a wér moo tax kenn ku ci nekk dans la consultation rek bu dee ci ñun daañu la mën a wax séance su traitement bi ñaari yoon nga koy jël wala ñetti yoon nga koy jël wala benn yoon nga koy jël am na ci ñi seen hémorroïde seen hémorroïde sorewul mm-hmm. ki nga xamante ni moom hémorroïde tam da koo doon mm-hmm. ci mbaam ki nga xamante ni doxum siteen da koo doon ci am na famille yoo xamante ni feebar hémorroïde képp ku bokk ci seen famille ndax dañ koy doon feebar la bu ñu doon ndoxum siti képp ku bokk seen famille dafay am mm-hmm. problème mu tànk feebaru tànk am ñoom te ni képp ku bokk seen famille da koy am B am ñoom te ni képp ku bokk seen famille da koy am mais ki nga xamante ni moom hémorroïde bi da koo doon ba mu juddoo ba tey mi ngi ak kooku benn rendez-vous du ko faj wala benn séance de traitement du ko faj ndax logique rek la ñuy waxtaan logique rek la ñuy waxtaan mais ku yàgg ci loxo noo ko téye mu xam mm-hmm. ndax ki xamante ni moom hémorroïde tam daaneel mu ñëw jël ci sëñ Bara Fall traitement de un mm-hmm. mu gis ni kat évolution traitement fa wàññeeku na à cinquante pour cent mu xam ne kat su ma ko toppee naa ci gis njariñ mën nga ko topp mm-hmm. ci deux mois wala trois mois yàlla dina ko dina la wéral mais am na nga xam te ne moom dañuy ñëw jooni jooni rek benn un mois rek mu wér mhm. loolu mooy jooni jooni jooni jooni waxuma ni mu ñëw tey wér tey loolu amul fenn ci faj man damay wax dëgg rek logique laay wax ndax nit ñi itam bi ñu def borom xel lañ mhm. kon ci logique rek ngay wax mhm. traitement hémorroïde ñun bi ñu am bi gën a gaaw un mois la nit ki bu ko traité un mois bu fekkee hémorroïde bu sorewu ci yow lool yàlla mën na dimbale benn yoon rek mu dañ ci tax yàlla incha allah Mm-hmm. ki nga xamante ni rek moom mooy cabinet médical univers bio euh, nekk Guédiawaye arène Doubalès boo fi allah rabbi euh, bu leen yàlla jubóole ci kàttan yàlla lépp loo xamante ne rek indi ko fa waaye rawatina feebar bii nga xamante ne ci lañu toll nii euh, mu nga xamante ni moom mooy nekk feebar boo xamante ni. waxtaan ci ak ñun daf may daal neex loolu comme ni ma wax ci hémorroïde rek dafa bari version ndax ku nekk xam na ñuy faj bari na maamun maamun waaye nag euh, yoon la parfois ñu toog ak ñu ne Serigne Lamine Bara Fall mu ngi gën a indil ay leeral ñu gën a comprendre ndax na ñoo ni dañoo réer ci euh, baatu maamun mm-hmm. la bi nga xamante ni gars koy waaye maamun amul mm-hmm. yàlla rek moom ki mën mooy yàlla. moom mi tuddee boppam yaa zal jalaali wal ikraam baatu yaa zal jalaali wal loolu lay tekki yàlla rek mun te ku dul yàlla mënul waaw kon nit day fet docteur day faj mais yàlla rek muy wéral bu nit ku nekk nag la ngay faj da koy jàng da nga koy xam da ba mu ñëw man nag du ma tagg sama bopp waaye ku xam sëñ Lamine Bara Fall xam depuis deux mille deux à nos jours cabinet bii mi ngi nekk fii ci Guédiawaye arrêt du Balès mën nañu wax ni sénégalais yi ëpp ci sénégalais yi xam nañu xàmme nañu ràññee nañu mm-hmm. yàgg ci liggéey bi te suñu fi def tole suñu fi wax wala ñu def ci lu ñuy xeebe mm-hmm. ca la ñu jàng la xam mm-hmm. la ñu mën rek ci loolu lañu nekk ñoo ngi resté constant ci suñu démarche ci lii rek lañu xam lii rek lañu mën ci lii rek lañu topp tooguñu ci leneen jéemuñu sax njar ko wala wax ci leneen bu ñu dugg ci populisme du ñu dugg ci waxu jàmbur xamaluñu leen dara xamaluñu leen dara ñun lii rek lañ xam dimbali nit ñi ku feebar ñu dimbali la ku war a jàng soxla ñaan ci examen ñu dimbali la ku war a tukki soxla visa ñu ñaanal la ndax duñu ñu am duñu ambassadeur duñu bureau des passeports sëñ Bara Fall du bureau des passeports du ambassadeur man mayoo ma kenn visa duma bureau des passeports duma ñaan laa man ñaan jullit laa sañ naa ñaan ku ma yaakaar ñëw jox ma sa passeport ni ma ñaanal ma ah yàlla nga ma ci defal barke de ku foo bëgg dem ci àddina boo ñëwee ma ñaanal la ci yàlla def ci baat ku am sa feebar wax ma sama baatu allahuma bu may yëkkati maa ngi ñaan baatu allahuma bu ma nar yëkkati te loolu gënul ci yow yal na la suñu borom yóbbu fa gën ci yow man nag ñi ma yàlla boole te gën ci man rek laay keneen ku nekk kan fa yàlla yóbbu te mu gën ci yow yal na la fa yàlla yóbbu man loolu mooy li may faral di wax loolu mooy sama tontu ci li nga wax. jërëjëf léegi waaw ndoxum cité moom baat bi sax dafa xaw yàqu toppum sérieux mooy li ma doon wax léegi feebar la ba nga xamante ni maladie syphilis la maladie endémique la maladie vénérienne la loolu mooy ndoxum siti ci tubaab nekkul sax feebar bi nga xamante ni tubaab yi xam nañ ko tubaab moom ndoxum siti fu mu génn ci sa yaram ak nu ñu koy tuddee ñoom ñoo ngi koy tuddee les maladies de la peau maanaam tey jii ndoxum siti bu génnee ci kanamu nit boo demee ci ci ci boo demee ci docteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy faj lépp li jëm ci wàllu dermatologue yi muy dermatologue yi ñuy faj wàllu der yi mm-hmm. ñoom la ñuy wax les dermatologue ñoom ñoo spécialisé wu ci wàllu ndoxum siti léegi dermatologue moom bu ndoxum siti génnee sa kanam na mu koy tuddee ak bu génnee sa loxo na mu koy tuddee ak bu génnee sa dënn na mu koy tuddee ak bu génnee say tànk na mu koy tuddee du bokk bu génnee sa bopp na mu koy tuddee du bokk mais bu dee wolof nag ñun lépp dañ koy wax ndoxum siti ndax ndox la ndox la mais ndox la buy daw ci diggante deret bi ak der ndox ndax am na trois cent soixante dix neuf xeetu ndox yuy dox ci deramam namm ci mais dafa am benn xeetu ndox bi nga xamante ni ndox la bu infecté ndox la bu am microbe ndox la bu am virus virus bi mooy ndox mi si kon ma leeral ko bu baax man kenn gënumaa spécialisé wu fii ci Sénégal ci fajum ndox mi si nit gënuma ko spécialisé wu ndax 2002 ba léegi maa ngi koy faj barke Serigne Touba ba Sénégal di football France man fekk maa ngi faj ndox mi si de nos jours kon man nit gënuma koo xam te mosuma ci chaque jour sama cabinet mbooloo bu waree fay ñëw kon nit gënu xam ndoxum siti barke Serigne Saliou ku ma ko ci faj yàlla defal na tawfeex kooku moom man maa ko wax je défie quiconque ak fu mu mën a génn sa yaram bu génnee ci sa bopp mën nañ ko faj bu defee heure bu defee ñaar bu defee ay lésion bu defee ay démangeaison lu mu mënti def mën nañ ko faj fu picc mën a génn ci yow bu ma la ko defalee lu mu bëri bëri bëri lu mu néew néew néew wala ta bu mu mën sa yaram ma dama koy réparer ba mu def parce que dañu am ay pommades yooyu naan lu mu mën a lu mu mën a feeñ ci sa yaram dañ koy réparer ba mu dañ dañ koy réparer barke Sëriñ Tuubaa kon ndoxum siti ni ma la ko waxee léegi ndox la bu infecté te maa ngi doon wax sànq lu am solo xam naa dinaa ci mos a ñëw pour ci xeetu ndox yi nekk ci yaramu nit dama ciy tënk rek exemple ñu bëri xam ko ndax trois cent soixante-dix-neuf yëpp mënuma ko lim temps bi duñu ko may exemple maam mat nit bu amee ndoxum siti nee naa la feebaru ndoxum siti ndox la bu nekk ci deretu nit mm-hmm. loolu benn ndox la ndox bu infecté boobu te nit ay xeetu ndox yi infecté ci yaramam bari na léegi imagine ndox bi ngay tëfli xam nga tëflit ndox la mhm. nit ki li ngay yuut bokkul ak tëflit ba tey mhm. nit ki bakkan bi boo ñandoo am na ndox booy génne ñandaxit yi mhm. ndox la sarangoo yi bët yi am na lu muy génne ndox la ndox bi ngay ñaq ndox la ndox bi nekk sa pokotaan ak bi nekk sa suufu tànk bokkul li ngay saw bokkul kon ñaata na ndox laa li munu matagum na fukk te noonu laa ko mën a toppee ba trois cent soixante-dix-neuf loolu je trois cent soixante dix neuf xeetu ndox moo nekk ci doomu aadama trois cent soixante dix neuf yàlla moom mooy ki mën xoolal ma xeetu ndox yooyu yëpp te benn ci ñoom bokkul ak sa moroom canal bi muy jaar bokkul ak sa morom fi muy génnee bokkul ak sa moroom bi muy génne kon ndox yàlla xeetu ndox yi mu def ci ni bari na ndox mi nekk ci biir bàq bi ndox mi nekk ci put bi bii ree sa ñam yi yaa ngi dégg salive yi ak bi xamante ni moom mooy nekk fii ci put yëpp dafa nekk ay xeetu ndox yu bokkul ba sa nopp dafa am ndox mm-hmm. bët dafa am ndox yuur gi dafa am ndox ñaq bi benn bu ci nekk bokkul ak sa morom ndox mi xamante ni moo dem ci mooy dem ci saw yi ak ndox bi dem ci cabinet yi mm-hmm. bokkul ndox mi ngay ñaq bi ngay saw bi ngay demee toilette xeetu ndox yi dafa bari mm-hmm. mais bu ndoxum siti nag moom mooy ndox mu am infection ndoxum siti foo ko dégg rek mooy ndox bu am infection ndox bu am virus boobaa nag loolu virus ak infection nag foo nga xam foog nga jàng ko xam fan lay nekk ci nit xam nan lay dundee xam nan lay évoluer xam nan nga koy dindee ak moom lan la bañ virus boo gis am na lu mu bañ virus boo mënti gis am na lu mu bañ ñun nag xam nañu virus bu nekk lan la bañ ndax dañ ko jàng dañ ko xam bu ko defee ñu mën la ci may un traitement bi nga xamante ni moom lay jël am na lu koy faj ci biir am na lu koy faj ci biti itam dañ lay mayaale ay ñaan ba loolu mën dañ ndax alquran karim la ñuy faje ñu naan tur yàlla la yor sëñ Bara la yor moom laay fajee lépp di nga xamante ni exemple tur yàlla boobu suñ la ko mayee nga sangoo ko yàlla mm-hmm. a xam ba xam ndoxum si di képp mm-hmm. a a dégg benn góor ndoxum si di ñëpp ndoxum si moom ku ko amul rek da gaañ mm-hmm. exactement képp ku mos a ci ween foog nga am ndoxum si di ñuy waaw exact exact am de waaye nag ndoxum siti daal pour du wax kuy dund dang koy am ndax biberon bobu les végétal la wala les animal la boo ko doon xool itim ci jur la joge te jur yoy itim am na ci li nga xamanteni ñom juri jur am doxum siti doxum siti man gisuma ko ko amul ci àddina plus de 20 quelques années d'expérience gisuma ni ko ko amul da nga nan ku feñ la ak ku feeñ lawul ku garaawle ak ku garaawle wu waye comme niñ ko waxe léegi léegi niñ ko jangate kep ku nàmp ku nam kuy dund rek lañ la bëgg wax kon bu ñu waxee ku nam rek manam nit li bu ci do fa mu nam ak façon nàmp bu mu mënti nàmp nag mais kuy dund ku nekk faw nga am ndoxum si waaw yàlla moo ñu bindaaleeg loolu xëy na nag feebar la bi nga xam te ba ci tubaab yi sax na gën a sonal tubaab yi ay tâche yu la ñu am tubaab yi bu leen leen gis nii ci photo wala ci film wala ci dara de boo demoon dëkk feebaru ndoxum sitim dermatologue yi gën a ay ci àddina ay milliers et des milliers am ci dermatologue fii ci boo dee xool ay dermatologue spécialisé ba réew fii mais tubaab yi àddinay dermatologue la ñu am parce que feebar boobu dafa bari ci seen dëkk tubaab yi la gën a sonal surtout nag ñii fii ci Sénégal nag ñii faral di lekk gerte kemb ak ñii faral di naan sow piir ñooñu daf leen di faral di dal ak ñi xam te ne ñuy faral di jël guddi gi suñu mbokk sénégalais yi cere ak meew yi ngeen di def suukar mm-hmm. éviter leen cere ak meew boo ci def suukar day yokk sa ndoxum siti ndax ndoxum siti tant que yaa ngi def cere ak meew ak laala bu noonu nga def ci suukar durian lay nekk durian lay nekk dafay gën a yokk volume ndoxum siti ndoxum siti bi su nekkoon litre sa yaram sooy lekk cere meew

personnel moom foofu moom da nga koy daal di bàyyi couleur WhatsApp numéro bi di 77 169 45 45 77 169 45 45 bu dee am na soxla secrétaire yi moo wootee ci 77 646 41 21 77 646 41 21 rajo bi nga woote ci 77 160 93 93 160 93 93. ñu daal di waaw jërëjëf soxna ma Mati macha allah euh, traitement bi nga xam ne moom moom la ñuy wax traitement mauvaise haleine mhm. comme ni ma koy waxee d'habitude rek tout d'abord ñu xamal askan bi ni am na fi c'est disponible waaw xawoon na nekk nag en rupture ndax mhm. ngi wax ni ñi xamante dañ dara am si fii rek mhm. euh, disponible am na traitement mauvaise haleine ndax moom traitement la nga xam ne ñun luñ ci am rek du doy. Mm-hmm. bokk na ci suñuy meilleure vente. Mm-hmm. nit ñi dañuy spé ñun dañuy spécialisé wu ci traitement mauvaise haleine. Mm-hmm. waaw luñ ci am dañ dañ koy jël ba mu jeex. mauvaise haleine moom feebar la bi nga xam ne mooy feebaru xetu gémmiñ ñu koy wax halitose. xet gi nag ci gémmiñ lay jógee rek moo gën a siiw mais am ñoo dañ koy sentir ci seen bakkan ñoom seen bopp dañuy sentir ni seen xetu gémmiñ wala seen xetu nooyi neexul. mais euh, cause bi li ko waral mauvaise haleine la majorité ci biir bi lay jógee. problème mu estomac la problème mu gastrique la ñoo xam te ne ñoo am ulcère estomac wala problème mu ballonnement de ventre feebar biir wala ñu am hémorroïde wala ñu am ndoxum siti en général maladie yooyu ci li ci xam li ci ëpp mooy li koy waral ma répété ku am ndoxum siti wala nga am hémorroïde wala nga am ballonnement de ventre wala nga am problème ulcère wala estomac maanaam def ay reflux gastrique def ay ngelaw ngelaw biir yi bàyyee ko ci mbàq mi maanaam eh, mauvaise haleine mooy mbàq mi mooy xëy mbàq estomac bi maanaam nit ku nekk nit lañu dañuy jàngal mm. nit ku nekk ci li nga lekk ku rey xar di nga gis mbàq ma mm. lan fay fekk ay déchets lay nekk déchets yi mooy cigarette wala mooy nañ ko baax mooy déchets yi mooy lu nit ñi rek mm. yooyu mooy xeeñ ci gémmiñu nit xam nga kon woon loolu doy na waar xetu xetu xetu ngay sentir ci sa gémmiñ wala xetu soo waxee xetu cabinet mooy xeeñ nit ñi kooku dafa nekk feebar bu doy waar loolu du lu ndaw de yàq na àddina ñu bare bare ñenn ñi mënatuñu dem jàkk ñaan ñi mënatuñu dem ci xew ñenn nañu bàyyi nañ seen liggéey ñenn ñi ñu am jëkkër ñenn ñi ñu am far ñenn ñi mënatuñu am soxna ñenn ñi xale yu góor yu ndaw yi mënuñu sax am jal mënuñu sax nekk jigéen ndax xeetu génn foo leen fekk rek ñu takk seen bakkan wala dañuy kaalaw wala ñu takk mas loolu mooy li nga xam te ne mooy li koy waral ci seen biir am na ñoo xam dañu am problème angine ci pour bi ñenn ñi dañu am amygdale loolu itam day nekk luy jur mauvaise santé boo amee angine wala amygdale boo defee xëy dañuy génnee ay grains yu weex mel na ay doomi ceeb wala ay mu xam si wala ay mel na ay doomi araw boo ko tojee muy am xet bu xasaw ñu bëri daan na leen fii di seen tur loolu moom moom mooy mauvaise haleine am na tamit nag seen gémmiñ problème mu dentition la am problème mu bëñ bu ñu wekki wala paxu bëñ wala problème mu siiñ seen siiñ bi bu ñu brossoo sax seen brosse seen pâte dentifrice wala dara dañuy gis ni lay nàcc wala muy génne ndox mu jaune bu tax bu am xet bu xasaw loolu yëpp dañ koy santé am na tamit dañu am sinusite wala ñu am asthmatique ñoom it dañuy am problème mu mauvaise haleine mm. maanaam ñi am sollicite surtout ñoom seen bakkan day am ay buulu deret yi nekk fii ci biir day am ay infection yi nekk ci paxu bakkan bi ak fii ci baat bi dañ koy noyyi ci seen bakkan bi sentir tuyau bi nga xam te ne dafa am infection dafay noyyi ba seen biir bakkan kon virus su mauvaise haleine dafa nekk ay microbe dafa nekk ay bactéries yi nga xamante ni infection infection infection bucco-dentaire lañ ko tuddee les infections bucco-dentaires mm. bi ko dentaire nag ko ko ku ko ku ko am rek wax deug yàlla da ngay am lu koy sànni xetu gémmiñ bu am doole ngay am bu for yeen sa ya koy yek yeen sa yi ñi nga dëkkal ñoo koy yëg yenn saa yi am ñoo xam am nañ mauvaise haleine ñoom sax duñ ko xam mhm. ñi ñi nekkal ku ñu nekkal mu tax bakara wala ngay waxal ñu nit sax bala ngay pare mu def dëmmoo yu nii dina taw mhm. ndax xetu gémmiñ bi day wa loolu yëpp dañ koy faral di gis ak diko ko ak diko rencontrer ci suñu mara waye kum ci mënti dal rek inshallah rabbi am nañ ci pexé am nañ ci solution mën nañ leen ko fajal may nañ ci ay garab jox nañ ci ay traitement ba mu dem mhm. ñun traitement général traitement complet lañ ci am bi xam te ne moo koy faj ci biir bi moo koy faj ci put bi moo koy faj ci gémmiñ gi mayaale la sax ay ñaan pour rab ak ngelaw seytaane mhm. soxna maam Mati am na ñoo ne seen mauvaise haleine jinne ak rab ak seytaane la dañ leen ko sànni kort la dañ leen ko def liggéey dañ lay gis nga nekk ak ku baax nga am jëkkër wala nga am copain wala nga am ku baax wala nga nekk ak baax ñu bëgg la tàggale ak ñoom ñu sànni la mauvaise haleine liggéey waaw sànni la affaire ngelaw mhm. wala ngelawu seytaane ngelawu seytaane mooy affaire jinne mhm. ngelawu seytaane jinne bu nekk yow bu am ndax ku xam firawna xamoon histoire firawna firawna la zin fi law taal taxaw fi bilaad faqsarahu fiha fasad loolu lu muy leeral ak lu muy tëtal mooy firawna dafay jël jëmmi doomu aadama nekk ci nit dafa am xet xet firawna firawna jinne la seytaane la dafa àndoon ak jinne dafa àndoon ak seytaane firawna sax nit la mais dafa àndoon ak seytaane ba firawna dafa amoon xet bu tolloon ay mètre ay kilomètre ñi mu nekkal ak ay soxnaam wala ay njabootam dañ koy xam ñoom dañu am odeur corporelle yaram buy am xet poqataan buy am xet euh, suufu kanamu sëykaay bi am xet maanaam yëre bu ñu sol sax quelques da ngay gis yëre boobu day am te loolu yëpp nekk na li xam te ni ñun dans la consultation suñ ko xoolee daañu la ci may ay ñaan wala lépp daal day daj moo tax ñun suñu traitement mauvaise haleine dafa ànd ak ay ñaan pour rab pour jinne ak ngelaw seytaane may la loo broso ndax da am na benn poudre bu ñu lay jox poudre bi nga xam te ni poudre magique bi sourire la boo broso bi nga xam te ni day weexal sa bëñ setal sa bëñ dindi rëdd yi dindi deret bu dee bi weexal ka tal ba bëñ bi set wecc weexal làmmiñ bi ba yu tàq-tàq yeeg microbe yeeg infection yeeg microbe yooyu nekk sa gémmiñ yépp ñu nettoyé la ko ba mu set ay bain de bouche yooyu nettoyé sa gémmiñ ak lu faj amygdale ak angine ak li nga xamante ni moom lañ lay may luy faj ulcère estomac ndoxum siti hémorroïde ballonnement de ventre lépp lu nekk sa biir rek bu doon ñam bu reesul sax da koy nettoyer jindi ko ba mu dem defil jëm solo bu baax ami wax ci li nga xamante ne mauvaise haleine képp koo xamante ne rek dala sonal ñëwul fi nga xamante ne moom ci Serigne Lamine Bara Fall li nga xamante cabinet médical bi Univerbio nekk fii ca Guédiawaye arène bu Mbalaise boo ko ñëwee rek incha rabbi dina ay traitement yu ay ko yaakaar naa mauvaise haleine ak moom ndax tamit mu ay dégg ngeen lépp loo xamante ni rek wax na ko ci maanaam dina la mayaale yooyu sangoo yooyu suuroo muy ay catak ay seytaane yooyu yëpp nga xamante ni incha a tënte waaye ba tey ma leen di joxaat numéro bi rek ndax si la bokk damay bañ émission bi jéem ñi di wër fu nekk numéro bi numéro personnel am nga xamante ni ko dañu ko koy bàyyi moom mooy 77 169 45 45 secrétaire am boo bëgg jox ko am moom def 77 646 41 77 60 93 93 loolu mooy numéro ki nga xamante ni moom mooy Serigne Lamine Bara Fall xamante ni rek am nga tawat nga ñëw fii ci ko jox ak dugalu tiit dina nga xamante ni ñun tamit loolu ñun suñu bopp bureau yi ñoom ko mun waaye nag ñu mu nekk tawat boo xamante ni bu metti la muy li nga xamante ni moom mooy takk xaal lan mooy waaw soxna Mamati euh, takk xala moom comme ni nga ci ñëwee tey laat ñu ko danañ ci mën indi ay leeral mm-hmm. ndax ku xam baatu xala baatu wolof la euh, xala nag mooy ki nga xamante ni dafa am soxna mm-hmm. dañ ko may soxna muy soxna su bees ngi am jël soxna wala muy doon ñaareel wala muy doon ñetteel wala muy doon ñeenteel en général war ko jël ci soxnaam bu ko lew bu ko dagal mm-hmm. foofu yàlla dogal mënu ci egg mënu ci jot wala mënul dara maanaam du érectionné maanaam du bande maanaam du jógal ndax mi ñi itam foog ngay wax wax bu leer pour ñu mën a comprendre dara du ko mën day yomb carrément kooku nag en général te fekk ni avant loolu mënoon na maanaam démb mënoon na tey mu xëy rek wala guddi mu jot rek mu war a jëfandikoo mënul jëfandikoo loolu mooy xalaat loolu nag lu bëri la ci sunu société bi jalousie wujje rivalité méchanceté xeex ak defante lu bon euh, surtout jamono ji ñi ci gën a bari nag ci li ñuy gis góor day am ñaari soxna am aawa am ñaareel mu takk ñaareel aawa ba mer daal di koy takk xala takk ko xalaat bi nga xamante ni waa ji day am defet maanaam du mën a mus a ànd ak soxnaam du mus mën laa de fii ba baftu bi di wal du mënati ci àddina dootu mënati xam nga loolu doy na waar te ñu bari ci réew mi nag loolu moo leen dal mm. am soxna si nga xam ne muy sa aawo takk la xala bu ko defee sa ñaareel du musa musa musa musa musa musa gis yow góor gu dëgër mm. doo ko musa amati góor gu dëgër moom sa aawo rek nga ko doon wan wala ci biti rek nga ko doon wane mais dootoo ko ti moom sa gisutu dund te xam nga mooy xala bi gën a bon mm. te moom moo fi bare jamono ji góor ñu bari yoom nañ te dañ leen ko def ñenn ñi seen jabar leen ko def seen aawo ko def ñeneen ñi ci des nag sama moroomu góor sax góor ñi sax dañuy defante loolu mm-hmm. ndax góor dina doxaan xale bu jigéen bëgg ko takk takk ko bu yàlla may ko beneen jëkkër nga mere nga mere ki ko takk liggéey ko takk ko xale bu ko defee jëkkëram dootul mën dara boo boolee xool ci takk yi ci jàkk ji sax xobu guro bi ngay gis nii ci la ñuy liggéeyee takk xale moo ci gën a bari kon sëy bu ñuy takk fañ koy takkee ca jàkk ja xobu guro ba wala doomu guro ba du n'importe qui moo ci war a jot xobu goro bi itam du n'importe qui moo ci war a jot lu gaaw la ci takk xala kuñ ci mën a takk xala dañ la ci takk te takk bu gaaw tam pour dindi ko nag dana jafe nag dinga nga ci ñàkkaat xaalis bu bare bare bare bare waaw loolu mooy takk xala te loolu nag la ñu sentir dafa bari nag ay forme dafa bari ay façon dafa bari ni ñu koy defee dafa bari ni ñu koy dindee dafa bari ay yoon yu ñu koy def am na ci dama wax aawo yi rek am na ci ñaareel yi xam te ne bëgguñu ñetteel am na ñetteel yi bëgguñu ñeenteel am na ñaareel yi ñëw bees takk xala aawo bu njëkk amna ki xamanteni ñong ni ñoo ngi koy doxaan takkaguñ ko sax mom commencé na takkaan xam nga lolu doy war lolu mo fi nekk amna ñi xamanteni goor dafa leen di dik mariage dafa leen promesse de mariage yalla dogulul sey ba sëy ba amul xale bu jigéen ba mer tak ko te yooyu dañ ko fi gis lu bari la te dafa bari façon bu yagul dara barki dembo njaay amna ci ben kina bu ñew ñu xolal ko li si xaaral ko setal ko jafé jafé ci ak goor ak takku sey bi mais dañu gis ni dañ ko takk xala mais ba ma gis ne dañ ko takk xala dama ni ko ci liggéey bi ñu la def ci jël lañ ko def ndax am na xale yoo xam te ni ci jël lañ koy def maanaam jabaram ci congélateur am dañ ko defal liggéey jën bi jën jën xar jën bi def liggéey bi ci biir jën bi def ko ci congélateur bi tant que mi ngi fu sedd liggéey boobu tant mi ngi fu sedd ku jee góor ki day yooma yooma yooma yooma yooma yoom affaire am day sedd rek daram du tàng waa ji day sedd rek dara dara dara du dox du bande du am érection du jógal ba ma ko seetalee liggéey bi ma ni ko liggéey bi ñoo ko liggéey mais ñoo ngi ko def ci biir biir frigo demal nga yëbbi sa frigo nga ubbi jël yëpp nga xool ko mais bañ ko ubbee dañ ci fekk jën bi ñu congelé ko sandwich ko ci biir liggéey boobu bon soxna Maamati loolu doy na am na ci liggéeyu takk xale yi xam te ni ñoo koy def ci suuf ndaal loolu ancien modèle yi la loolu yàgg la ndax boobu frigo amul mm-hmm. mag ñi ci ndaal lañ ko daan def mais niveau wooyu sénégalais yi léegi dépassé na ñu naan bandi bandi yi léegi xale yi jigéen yi ñuy liggéey xale yi bandi lañ ci congélateur yi lañuy def da gis jigéen yi xam te ni ñoom seen frigo am na jën bi nga xamante ni trois ans ma nga fa di liggéey yu garaaw ci frigo yi lañ koy def laa wax ni ci jën lañ koy def dañuy jënd seen jën bu mag yaax wala toje nga yaakaar ni jën boobu wala dara fekk jën boobu trois ans mi ci biir congélateur bi nañu xoolaat congélateur mhm. am na jën yu yàgg yi nañ ko seet ay liggéey ci nekk dama ni ci biir frigo yi nañ ko ubbi ñu xool ko am na liggéey yi nga xamante ni ci biir congélateur yi lañ ko def tant que jën baa nga fa muy sedd ah waa ji mbiram dara du dox dara du dox su su su su su su waa ji ci aawo bi exemple damay jàngale rek wala exemple ma jël ñeenteel bi su waa ji ajee ci ñeenteel bi ñeenteel bi moom day dindi jën bi te ko ci waañ ba bàyyi ko mu désivrer su désivrer waa ji day mën su dugalee ci congélateur bi waa ji moom mën xam ne kon loolu doy na war am na liggéey yoo xam te ne jigéen ñi ñoo ko def ci seen suufu ci glacière lañ koy dugal tëmbal ci glace buñ ko dugalee liggéey bi soo ci tëmbalee glace rek waa ji di ay biram day congelé dara du dox yenn yi ci ndaa lañ koy def ndax ku xam xala fas la ay fas la am na ñu koy liggéey ci fas am na ñu koy liggéey ci alxuraan am na ñu koy liggéey ci sunguf am na lu ñu koy liggéey ci reen am na lu ñu koy liggéey ci yax façon xale yi dafa bari am na xam te ni jat la am na xam te ni ñu koy liggéey ci sa tur góor gi yooyu yëpp ay façon la am na ci li nga xamante ni ñi seen rawaan nekk ci ndox dañ koy suul ci tefes ci ci tefesu dex gi di yam noonu fi muy tooy ak fi muy wow am ñoom ci géej la nekk ndox ndox lañu am mais ci géej ci géej lañ koy def am na ñoo xam te nañ koy takk ci garab tànk ngelaw laa koy yëngal xala bi day dox am na ci xam dañ koy suul am na ci li xam te dañ koy sëf am na ci xam te dañ koy daaj am na ci li xam te da ngay yëkkati lu diis teg ko ci kaw waa ji yaram bi day diis gann gann gann am na ci li nga xamante ni sax dañ koy nawtal dañ koy def ci safara di ko lakk bind ko ci ali waxanjaar di ko lakk fitu fitu ndaw fitu waa ji bu gisee jigéen rek fit bi dafay tëf tëfi day tiit waa ji day ragal su gisee jabaram rek te ragalul jabaram mais su gisee jabaram rek wala bu tàkkusaan suuf di jotee fitam day mel ne lu dem wala loolu doy na waar loolu mooy takk xala loolu nag c'est pas naturel c'est mystique mais nag am na ci ñi nga xamante ni seen takk xala feebar

moo tax mu impuissant li koy waral ko mën na nekk feebar comme ni ma ko waxee sànq ndoxum siti mën na waral nit impuissant nga am problème mu cardiaque tension hypertendue mën na joxe nga impuissant nga am problème mu prostate mën na tax góor am prostate yaa ngi nga am jabet ndax sunu mag ñi sunu paa yi sunu anciens yi ñoom it ñi ci ëpp ci ñoom dañu am jabet ndax ko xam suukar xam carbone la te carbone dafay dem ba jàpp la ñi nga xam tamit dañu am problème mu métti tu yax métti tu ndigg nerf sciatique rhumatisme hernie discale problème mu yàq problème mu sidit ñooñu itam dañuy impuissant ak ñi nga xam te itam dañ doon mballu di foowee seen bopp di masturbé wu problème mu masturbation itam ci jeunesse bi jeunesse bi am nañu problème mamati la jeunesse sénégalaise am nañu problème masturbation bee ngi teppi dëkk bi toog ci biir néeg tëju ci biir néeg jël sa portable di seetaan YouTube di mballu looloo fi gën a bari nag ci muy góor muy jigéen nag nañ ko wax de te loolu surtout bu dee góor ça rend mais nag lan mooy différence am impuissance éjaculation précoce faiblesse sexuelle yaa ngi dégg ak panne sexuelle yu bari la te bari ay façon ak lan mooy seen différence ak wàllu li nga xamante ni mooy wàllu xala xala moom c'est mystique dañ la ko def naturel mais lee moom feebar la peut-être yàllaa la ko teg peut-être nag feebar yaa koy teg sa bopp am na ñoo xamante ne feebar bi ñu am ñoo ko teg seen bopp du yàlla am na ci ñoo xamante ne feebar bi nag nattu yàlla la ndax ku jabet tegoo ko sa bopp peut-être yaakaar naa bokk ku am prostate tegoo ko sa bopp yàlla la ko teg mais ki nga xamante ni dafa doon toog di foyee boppam di foyee boppam di foyee boppam ba ay siritam dagg ñu bëri ci réew mi nag am impuissance wala éjaculation précoce loolu la ko wax

impuissance sexuelle wala éjaculation précoce waaw ñetti feebar la yi nga xam ni daanaka ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. waaye bokkuñu tronc commun bi li ñu bokk mooy góor gu yoom mm-hmm. góor gu yoom mooy góor goo xam te dafa impuissant dafa tële góor gu tële waaw ku tële mooy ku impuissant kon dégg impuissance sexuelle mooy li nga xamante ni moom mooy baat bi gën a fës mm-hmm. mooy ki nga xamante ni wax dëgg yàlla dafa am soxna mais mënul ànd ak moom normalement normalement maanaam la bu impuissant wee mooy awra bi dafay nooy maanaam awra bi dëgëru maanaam du jógal du bande du am des bons érections du mën a sax jógal soxnaam dina tëdd mu tëdd mais lu nekk soxna si dina ko def mais du dem du dem ñooñu la ñuy woowee pousse mu tàkk ñenn ñi feebaruñu mais psychologie la mm-hmm. seen xel seen xel moo am problème ndax stress yi famille yi problème xam nga góor nga am sa soxna ngeen am problème mu xas la wala mu am wax yu mu la wax wala mu am lu mu la def mm-hmm. sa organisme da koy rejeté day dem ba yow kooku mënatu la yëngal wala kooku mënatu saf te loolu mooy li ëpp solo ci dëkk mhm. kon faible problème yi ci biir kër yi la commencé stress bi stress bari ci liggéeyukaay yi stress yi bëri ci kër yi stress yi dafa bëri famille kon bu fekkee da am soxna soxna si ni mu la war a jàppee ak fam la war a teg tegu la fa wala am wax yi nga xam te ne seq ngeen ko wala am soxna si yu muy def yi nga xam te ne ci teg sa bët da dem ba yow sa organisme dootu ko bëgg wala dootu ko ñeme mhm. kooku pour nga bande ci kanamam sax dootu mën la saf dara da ngay génn ci biti xale bu jigéen bu ndaw yëngal mm. boo duggee sa kër doo mën a dem ñu yaakaar ne sax yow da nga feebar wala nga yaakaar da nga feebar façon garab façon ren façon comprimé bu ne nga naani ko te fekk ni yow sa xel moo paan ñenn ñi ci bëri na loolu leen dal am na ci xam dana dañoo feebar naturellement amuñu problème soxna su baax lañ yor et tout mais seen problème mooy dañoo am panne sexuelle mm. boobaa na ñun bu ñu defee consultation comme ni ma koy waxee bàyyi leen ma message vocal whatsapp ci 177 169 45 45 dinaa la mën a xoolal sa panne sexuelle boobu nan laa ak naka la mooy ñi am problème mu puissance ki am éjaculation précoce nag comme liñ ñu koy waxee rek ci suñu jargon fii ci Sénégal yaa ngi dégg mooy pir bi maanaam ñoom dañuy ñëw rek daanu ne dañuy gaaw ku jigéen ki du sax jot boppam ñoom pare na ñoom ñooy éjaculation précoce ñooñu itam am na lu ñu leen di faje li mhm. nga xamante ni am nañu pommade bu ñu leen di jox looy diw bu ko defee doo gaaw a daanu am nañu garab booy naan bi nga xamante ni soo koy jëfandikoo moom it doo gaaw a wàcc mhm. ñenn ñi ñenn ñi naan be lañ gënal ñenn ñi gamme bi complet moo leen mhm. gënal gamme bi rapido extra bi ñetti pomate moo ko composé mhm. ak benn garab bu ñu naan mooy fa faiblesse sexuelle impuissance sexuelle éjaculation précoce mhm. lépp généralement ci kattan yàlla ak baaxamu yërmande suñu dernière question nag mooy euh, est-ce que dina am ci góor ñi ñu ñëw wax ni dañuy am problème maanaam awra bu daal waaw soxna Mamati lu lu lu lu lu bare la fi lu bare la fi am nañ ci gamme de traitement bi nga xam ni moom moo koy yokk moo koy yokk moo yokk guddaay bi yokk yaatuwaay bi diamètre bi yokk longueur yokk largeur muy diamètre bi mu gudd mu yokk mu rëy te dëgër nga xam te ne yow di nga mën di sa partenaire sa soxna di ci gis boppam wala ki nga sekkal di ci gis boppam yow it nga ci gis sa bopp loolu nag mën nañ ko def ci kaw nit ki nga bañ ko judduwaale bu jureekee judduwaale la mm-hmm. mënuñu mais képp kee xamante ni bir la ni yow mënoon nga mhm. amoon nga lu baax amoon nga lu normal amoon nga lu naturel dem nga ba ci biir nga yor lu ndaw bu soobee yàlla yenente bi mën nañ la jox traitement bi nga xam ni day yokku buddaay bi yokku yaatuwaay bi yokku réyaayam te itim yokku dëgëraay bi surtout loolu itam am na ci mais bu guddoon te dëgër amul njëriñ mhm. mais loolu yëpp comme ni ma ko waxee rek man ku ma bëgg jot directement dans consultation te dans la consultation itim da ngay jaar ci numéro bii may joxe muy sama numéro personnel et direct di 77 mhm. 169 45 45 Comment message vocal pour bépp soxna mo waxtane ak yow agrandissement lu mu ci vocal la tontu wax la nan la principe méthode organisation consultation problème pansexuel mhm. problème impuissance éjaculation précoce faiblesse sexuelle wala agrandissement wala dysfonctionnement am. wala nga masturbation lu mu cause diabète, tension wala ndoxum wala muy hémorroïde wala lu mu a doon rek wala muy prostate ak lu mu ci mën doon dañ ko faj ba ci jigéen ñi nga xamante ne itam nag dinaa leen ko wax mooy jigéen ñi nga xam ni dañuy sëy te duñu am bànneex te soxna yi itam wara war leen am na jigéen ñi nga xamante ne ils problème moom duñu am bànneexu sëy te loolu itam ñooñu foog ñu defal leen ay ñaan dimbale leen ci ci mbir incha allah. waaw soxna maam Mati tàggatoo la bu dul tàggoo ndax xam nañu ni suñu partenariat ak yéen mm-hmm. euh, yàlla na yokk yàlla na gën a jëm kanam ñu gën a ànd ak yéen saa su ne ci waxtaan yu ñu mel ñu gën ko sekk muy njëriñu askan bi euh, li nga xam ne moom laay tàggatoowee rek mooy mm-hmm. euh, di ko maye ndax daf fi xawoon a jeex ci weer yi passé mm-hmm. liñ daan faral di def lu bëri di ko dimbale jigéen ñi mooy jigéen ñi nga xam ne dañu nekk ay jigéenu wérum te di am ay complications ci seen ëmb di dem ba nekk à terme pour accoucher di tiit di ragal yaakaar ni seen accouchement mu bañ ci am opération wala bañ ci am benn complication ñooñu rek leen di may traitement gratuit mm-hmm. loolu bépp jigéen bu ko soxla ak foo mën a nekk ci àddina laajuñu ci dara addiyee seen tubaab rek lépp loo am loo mën nga ci joxe mm-hmm. soo amee junni baax na soo amee ñaari junni baax na loo am rek wala ko moom ngay teg sa loxo mm-hmm. bu ko defee bépp jigéen bi nga xamante ni yaa ngi soxla ñaar yooyu bëgg mucc ci jàmm bëggoo ci opération wala bëggoo ci benn complication wala bëggoo ci benn problème loolu àddiya Sëñ Tuubaa rek ngay joxe boo ñëwee ñu may la ci ñaan yi nga xamante ne di am doom ci jàmm ak salaam boo nekkee bitim réew da ngay yónnee nit bu ñëw wut sil la ko mm-hmm. bu dee yow it yaa ngi ci dëkk bi nekk ci jàmm ak salaam yaay ñëwal sa bopp ñu jox la ko wala sa borom kër ñëwal ñu jox la ko mm-hmm. wala sa ndey ñëw wax ñu jox la ko mm-hmm. wala sa sa sœur ñëw ñu la mais incha allah rabbi amul benn tarification buñ ci teg dañ koy def àddiya Sëriñ Tuubaa képp ku ñëw rek loo am ak loo mën rek loolu ngay joxe ñu may la ñaan te yàlla tax di nga mucc ci jàmm nekkul itam gratuitement zéro zéro zéro il faut nga teg dara ci loxo bi ndax barke moo tax li ngay liggéey barke lañ ci soxla kon barke rek lañ ci soxla képp ku ñu yàlla booleel daañu la ci dimbali te yàlla tax loolu moo doon wax ci soxna Mamath yi jërë ngeen jëf bisimilah jërë ngeen wàccee jàmm ci réew moom bitim réew ndax lu dul jàmm jàmm ko gën te jàmm ci la lépp xaj ni ñaan tamit yàlla defal tawfiq képp koo xamante ne rek a tawoon na yàlla fëgg sa bopp te koo xamante ne rek ñëw nga fii ci cabinet bu bu sëñ Bara yow bu nga xamante ne ñoo univers bu sëñ Bara ñu ngi nekk Guédiawaye arène képp koo xamante ne soxla nga ko ci numéro personnel am nee naa la da nga koy bàyyi audio audio bi nga koy bàyyi da nga koy envoyé si numéro bi 77 169 45 45 bu nekkee da soxla ay secrétaire mën nga woote ci 77 646 41 21 77 160 93 93 loolu moo nekkoon émission bi leen nuyu bu baax di leen jaajëfal beneen incha allah jërë ngeen jëf